jërëjëf ndaw Dakar. ndaw ndaw jàpp dañu démb fi laa ko nag dix heures ay dix heures. démb la fi démb. démb si ay dix heures ñoo jullee na jumaa ko nit ñi dama ñu ngi sant bu baax jàmm rek alhamdulilah Thank you. wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk internet Farokh TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare tey nag ñu ngi fii nii ci barabu sëriñ bi nga xamante fii la taalibe yëpp ñi nga xamante ni kenn ku ci nekk nag yi nga am addi yi nga am jënd ko muy nag yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey moom lañ ñëw fii nii ànd ko sëriñ bi mu ko jox ko jaami yàlla yi démb rek hier lañ doon kii maanaam wàllu ceeb beeg yëpp amul lenn loo xamante ni da ciy dugg ci kër sëriñ bi lépp rek jaami yàlla yi ñoo ko tax a jóg tey nag ñu ngi fii ci barab yi nag yi nga xamante ni moom lañ ñëw nii pour jëlal leen nag yi nga xamante ni moom la taalibe yi jënd njaboot gi jënd ko ñëw indi ko fii nii jox ko sëriñ bi sëriñ bi moo doxal boppam ay tànkam ñëw taxawu leen pour jël nag yooyu jox ko jaami yàlla yi jox ko jullitu yàlla yi waaye jox ko waa dëkk bi ñu teral gan ñi xam naa ne balaa ñu du ñu def dara lu dul xaaral ñoom kenn ci ñoom rek pour jël ak ñoom waxtaan bi incha allahu rabbi naka la naka la programme boobu di tëddee incha allah. radiyallahu taala anhu ñu ngi fii nga xam ne fi la ñuy dajalee nag yi ki nga xam ne moom la xalifa bi alaaji ba Cheikh Mahamadul Basir Omar Ndaw tegoon mbiri ci loxoom di jàmbaar joo xam ne dafay liggéeyal maamam muy Cheikh Mahamadul Moustapha Mansour ñu fas yéene ànd ak moom lenn ci ay laaj ci sabab bis bi nga xam ne taalibe yi ñu ci def seen nag aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala sidi wujudi wa alimi suhudi seydi lawalina wal aaxirin wa ala alihi wa xulafaayi wa man ittaba huda ila yawmi din ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bis ni ki tey e nekk mawlidu rasulillahi sallallahu alayhi wa muy bis boo xam ne fa tabaarakallaahu aqtaaru ardi yëpp ñu ngi koy màggal yàlla dogal na nag fii ci Daaru Salaam suñu maam ñu ngi ko màggal léegi xam naa ne war naa mat juróom-ñetti wala dina jege téeméeri at ñu ngi ko doon def ci Medina ba ñëw ba Daaru Salaam yàlla dogal na fa tabaarakallaahu e tey ki fi toog tey mooy xalifatu Seex Aliyu Bachir ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko taxawaayam ak ay rakkam yëpp mu yàgg ñu jiite ndax ku yaatu la ku dal la ku am xam-xam la ku xam ne ku ubbeeku la lépp loo xam ne tax kër gi mën a dem ci kanam ak lu koy yokk ak lu koy taaral ak luy fasante kër gi loolu mooy hitteem mooy bëgg-bëggam loolu na wax ne nag eh, dama xam ne sa baay sëñ Mansour bu nekkoon mooy kalifa alaaji ma ndaw xalifaam nga danaa ci am cër comme yàlla dogal na man maay xalifa ndaw sama sama sama sama xalifa gi doomi alaaji Mansour dana ci am cër kon kooku man tam dama koy gërëm te di ko sant ndax nit mën na laa may lu ne waaye tab ci daraja yombut waaw te itam na ci daraja yaatu na te itam ubbeeku na te itam tabaarakallaahu nay ma suñu romb ñaar fukki nag ak juróom bi ma ko joxe maa ngi wax wutu ñaar téeméer ñaar téeméer nag lay wutu li may lijjanti doo xam ne dem ci ñaar téeméer ci ay daayira ak ay taalibe ñooy joxe na yooyu ngir ukkullu man jadda للمولود يقسمها وفصول من نبيه القير من كتيم نجد من مقال قدي رسول الله ندلو نجوك برام دارو نخ لبم رسول الله لو هم يب ينتبه كجوه لكن تمو ينتبه كان دقوتي وغاني واتنا ربي إرسادا تودن منو قير البريتي نجيب كما يجو كما يقارن تمو سيد وجو صلى الله عليه وسلم من بيال دوغل ينتبه قارن تعالى جمان دو مول لغي لغي بطولوني يدن بقل فان بطوك مساس من لملني مقتان نيني xamal ne leen ne yonent bi wax ne man faalta xayran nil tu jazaahu ku def lu baax na seen sa pay xam yàlla dana la fay loo boo defoon téeméeri nag it yàlla dana jox lu ëpp téeméeri lu ëpp million kon su ko defee ñun alaaji woon ndaw lañ am ndax buñ ko amutoon dañ dañ ko xutaani dañ jëgaani gàmmu tuñ ko jëgaani suñ buntu ga lañ fekk nit ñi fekk ñu fi ñu bokk ak ñoom gàmmu gi lépp lu ci waaye man ak lu ci taalibeem ak xarit ak soppi yeeg ñëpp mur yi sax def nañ ci gàmmu gi waaw ndég bëgg yàlla bëgg rasulullaay bëgg mawlaana alaaji ma ndaw alaaji ma ndaw moo ne man wan fa muhibbi wa ashaabi wali ni ko yaa naa fi yàlla yàlla nag ma jëriñal ki ma bëgg ma jaral ko lu ni na mën na laa bëgg ñi bëgg nañ laa yoma ndaw ñi duñ taalibeem ñi sopp nañ ko ñi duñ taalibeem ñi ay murid lañ ñi ay yeneen kër ci lañ bokk waaye borom daaru bëgg nañ waa saa bi ak taalibeem yi wooyu na ak doomam yi wa ahli ni ak képp ko ashhadu an laa ilaaha illallah surtout Muhammad rasulullah bokk nga ci ñaan ko mën aati yàlla nga ma may jamaat sama mbooloo mi fii diina ci diina nañ ngëb diina diina ku ko am mooy référence da nga am jikko ju rafet jikko joo xam ne danga nga mën a ànd ak doomu aadama yi rasulullah dafa ne xiyaarukum u xaasinukum xuluqan kii gën ci yéen mooy gën rafet jikko jikko yi rafet yooyu laa yemoon na wax naan wa in takun mujtanibun mujtaniba talal maqaman saamil muntaqaba mun soo teeyee tey seg boo seggee da yàlla dana la jox maqaamu yëkkatiku yàlla moo yëkkati moo yëkkati waat dana la jox maqaam moo xam ne yëkkatiku kon alaa jamono jàngal nañu lan la ñu war a liggéeyal yàlla nan la ñu liggéey rasulullaay nan la ñu borom daaru jaral borom daaru wala wax nañu taalibe yi nangu ne wa kullu ma xasaltu min barakat fastaxi dana fayduhu min tawan nangu nañ ne ñoom lu xam rek xoma ndaw la dañ ko nangoog léegi nag yàlla daf na ñu ngi yokk seen saayir ak ci baatin ala yow ndaw nag def dibale ñun taalibe yi nañ gën a yaa suñu xol yi ñun sëti Alaaji Omar Ndaw nañ liggéey Alaaji Omar Ndaw li ñu xam nañ ko jox borom daaru nañ gën a yaatu te musal ñu lépp loo xam ne dafay xoyofal doomu aadama wala dafay dafay yàq doomu aadama nañ ci mucc ndax borom daaru moo ne tawfiiqan liwi tatina maa ngi sama njaboot. ñu ngi fii nii ci Darou Salaam Nioro taxaw ak nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu nag yi ànd koog sëriñ bi lépp li nga xamante ni moo fi dugg ci nag ñoom ñii ñoo koy xool ndax lu ñu war a mën la wala lu ñu wartu mën a ñoom ñoo koy xool ceytu ko ba mu méngoog jamono ñu jébal ko sëriñ bi sëriñ ko jébal ko taalibe yi ak uh, mbokki jullit yi ci ñëw di ci teew yëpp ànd ak moom ci guddi yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanaa ñu bàyyi leen rek ñu nuyoo ñu jéem leen a laaj naka lañ àndee ak sëriñ bi ci liggéey bi ni sëriñ bi ñu baax di la Euh, di leen nuyu euh, ma ngi leen di leen nuyu di leen euh, dellu ziar kon ñun service service vétérinaire bu département Nioro nga xam ne chef de service départemental bi moo ko jiite ñu ànd seeg suñu ay nawle yu nekk si département bi maanaam suñu ay collègues man maa nekk Paoskoto kii moo nekk Taïba Niassène kii moo nekk Poroxaan kii moo nekk Ndramé Sakal am na ñeneen tam ñuy yow dañoo egseegul kon ñu ngi yow si ndigalu ministère de l' élevage et de production animale ñoom nga xam ne ñoo ñuy sas euh, xew-xew yi diine yu mag yi soo amee euh, service bi teew maanaam ministère de l' élevage teew ba nga xam ne ndawal léegi lañ fi jëfandikoo muy gëléem nag xar béy ba ci ginaar ñu mën ko saytu Euh, lépp loo xam ne mun na lor doomi aadama ñu génne ko ci waaw loolu la ñuy wax saisie su ko defee euh, lay dem si ci cin la nekk lu sell loo xam ne du lor doomi aadama loolu daal mooy suñu taxawaay fii. kon maanaam yéen yéenay saytu lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu ndawal mu jëm fii ci dëkk bi moo xam gémel gélem lañ fi rey wala nag wala lu mën a doon ci seen loxo lay jaar pour ngeen saytu pour mu door dugg ci dëkk bi. waaw noonu la demee.

suñu ko mënee ràññee loolu ñu wax inspection mm-hmm. ante mortem kon loolu ci seen loxo lay jaar suñu loxo lay jaar mm-hmm. ba suñu paree nag ñu taxawaat mm-hmm. xaar ba ñu rey nag yi ci kon ay condition maanaam jur bi ci gàttal ci ay condition parce que am na ay am ci ay conditions yu ñu koy rey waaw yoo xam ne yéen yéen a koy assurer waaw lii lii te tey nga gis nii ñu ko wax bétoir euh, su su fi taxawee yàlla ak la dëgg ndax xaw ma ndax at yi passé yow yaa ngi ko moom c'est la première fois voilà fa fa ñoon liggéeyee remplir condition de salubrité remplir ko ñu taxaw ci nag service vétérinaire taxaw ci si ndimbalu mairie ak ni ndimbalu sous-préfet mm. ci gàttal autorité yi jàpp ci mm. ba bañ jëmal lii tey kon daal maanaam su ma su ma la déggee daal ci gàttal amul benn maanaam jur boo xam ne ñu ngi ko war a rey wàllu gàmmu te defuñ ci uh, gëstu buñ ci war a def pour door ko mën a utiliser. loolu mooy suñu ngëneel hmm. te tam sëriñ bi tamit hmm. loolu la bëgg hmm. wante nag peut-être am na ñoo xam ne ah, am na benn gàtt seen kër. bu ko jëfandikoo ak seen ay njaboot. ah du ñu egsi loo leen di wax. ñooñu ñu egsi ñu saytu ko. ñu egsi ko. te tam def naa tamit.

voilà euh, loolu aussi loolu aussi fii aussi presse la presse en en ligne waaw euh, ñu ngi ñaanaat aussi état bi ñaxtu yi nga xam ne ñu kon koon def maanaam revendication yi vraiment état yi jàppale ñu ci pour pour pour gën a améliorer suñu ay conditions de vie ak suñu condition de travail loolu aussi dañ koy yokk rek <laughs>